Les nga qui ont fait bi esprit ils euh, vendre plus de 50 000 exemplaires la ont euh, am un li nga euh, disque satisfaction waa plaisir bu rëy rëy rëy ndaxte Esprit Noir doomu Sénégal la euh, man aussi doomu Sénégal muy doomu Mbour man may doomu Mbour mu soxla ma euh, woo ma ci albumam euh, mu am disque d'or te man koy ñaanal mu am platine am diamant ndax xalé bu am talent la donc defé nané tay ji ma bokk ci am disque d'or manit, defé nané plaisir la ndam li ndamu Afrique la ndamu Sénégal la c'est l'Afrique qui gagne. vraiment di delloowaat njukkal rek fans yi ak ñi déplacé wu yéen ñëpp euh, presse bi bàyyiwuma kenn di leen remercier di leen wax ne lépp lu ñu am rek ñun Sénégal moo ñu ñor tey ji fu ñu mënti taxaw fu ñu mën a dem tey ñun ay doomu Sénégal lañu Sénégal la ñuy tiitaroo donc yaakaar naa ne liggéey naa macha allah loo xamante ni euh, yàlla baax na war nañu mën a am leen lu lu lu gën a lu raw li incha allah ñu koy ñaan te bu ñëwee ñu tegaat ko ci loxo sénégalais fan si. bi nga ñëwee gis fan xarit yi am di jàmm aéroport bi fees ban yëg-yëg nga rek li mom moy euh, Sénégal deku teraanga la deku bokk la deku deku yërmande la donc euh, vraiment di kontaan rek ci fan si yi di wax ne lépp lu mu am rek ñom la koy wa ndax ñom ñoma ma <laughs> alors fan si ndax euh, affaire bi am na fu koy fété wala. hein ndax da nga koy fété bis doon. wa dinañ jouer nak samedi inshallah Villa Cristal mais euh dinañ ñu japp date après koor inshallah Merci beaucoup.